mais Adama Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay Amadou Diouf nga nekk consultant en droit secrétaire général du mouvement patriotique pour la défense et la citoyenneté déjà naka nga gisee plainte bi nga xam ni premier ministre Ousmane Sonko euh, teg na ko ci ndoddu Madiambal Diagne nekk patron de presse gannaaw moom mu koy topp ci wàllum diffamation ak yu demee noonu. waaw ni ñu ko jàngatee mooy gis nañ ne ces derniers temps Madiambal Diagne am na kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko teg si euh, premier ministre Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko nag ñaawlu na kaddu yooyu moom it mu tax ne ak ay avocat mu ne xaaral ma dem ci justice déposer sama plainte ne serait-ce que pour laver ma nit sama honneur donc yaakaar naa ne moom loolu li ko yoon may loolu la def déposer plainte li si des nag xëy na procureur dana ko saytu lépp lu siy wax moom dana ko def. est-ce que yow jàpp nga ni mbir mi jar na vraiment porter plainte dossier bi. waaw mais jar na porter plainte parce que ak ku mën di doon muy Ousmane Sonko wala citoyen lambda boo xamee ni diffamé nañ ko wax na loo xam ne ni ça porte atteinte donc honorabilité bi privée ah am na sañ-sañ moom mu déposer plainte li si des nag. yaakaar naa ne yoon mooy saytu dossier boobu jéem a xool ndax kii li mu wax am na wala amul bala mu si am lenn lu mu si dogal. Mhm. kon tey jii lan la euh, patron de presse bi ban risque moo moo nekk ci kawam yoon est-ce que mën na ko si daan est-ce que mën nañ ko placer sous mandat de dépôt wala waaw li ko si mën a fekk mooy fekkee allégation yi mu def amul benn fondement dara mu si ndëgër lay tegul ko fenn yaakaar naa ne bu boobaa tey. dina risque loo xam ni mën na jàpp ñaari weeru kaso ba donc ñaari atu kaso te yaakaar naa ne fekkee lii am na ah bu ñëwee boo moytul procureur dana ko daal di placer sous mandat tey jii aussi am na chamboulement maanaam ay changement yu bare bari ci euh, magistrature bu bu Sénégal am magistrat yu bari ay juges yoo xam ne euh, ñoom euh, ñoo yoroon dossier judiciaire yu Ousmane Sonko dañu gis ni ñoo ñëpp dañ leen a jël daal di leen affecté ca Tambacounda ñu bëri jàpp ni lu ni mel euh, sanction la ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ñu ci am mooy boo xoolee fan yële passé dañ doon réformer système judiciaire bi. kon ñoom biñ ci pare aussi yoon la ñu jéem a indi ay coppite yoo xam ne nii pour que justice bi gën a mën a dëgër ci loolu la président de la république jël benn xaatim affecté ñi nga xam ne nii Tamba ñi ci yeneen raison yi parce que loolu dafa nekk loo xam ne nii yoon may na ko ko la te magistrat bi ak lu mën di doon fonctionnaire la warul mën a bañ affectation donc man jàppewuma ko loo xam ne nii ay fayantu la waaye dama jàpp loo xam ne nii normal la si benn service léeg-léeg nit bu fa toogee nga yëkkati ko teg keneen boo donc li nga si jublu mooy pour defaral justice defar justice Mhm. Euh, ñu gis ni opposition bi ñoom jàpp nañ ni euh, soppite yi nga xam indi nañ ko ci ci magistrat yi du lenn lu dul rek euh, ñëw teg benn règlement de compte utiliser la justice sénégalaise comme nguur yi fii nekkoon rek niñ ko daan defee. waaw xam nga opposition bi moom dafa nekk dans son rôle ñoom moom lu ma di génn koy jaaxee comme politique wala dara comme règlement de compte wala nit ku nekk buy xalaat. di analyser objectivement dana xam ne lii lu jaadu la yoon la parce que boo nekkee ci service aussi du da nga nekk ba ila yow mi diini donc ki nga xam ne mooy njiitu réew moom it war na mën a jël ban décret boo xam ne ni affecté te affectation amul kenn koo xam war nga ko mën a contesté donc yaakaar naa ne c'est pour euh, une nécessité du service loolu tax ñoom it ñu affecté leen parce que magistrat bi it fonctionnaire la kon yaa man de ci sama jàngat noonu la koy téye wane jàpp ma ko règlement de compte mais opposition bi nag moom day continuer di opposé wu donc moom si droit am la nekk wane ni mu ko waxee man jàpp moo ne loolu moo am Mhm. Euh, ñu laaj la aussi mel ni bu ñu gisee li jot am ci wàllum justice bi sànq sax yaa ngi koy junj naan am na assise justice amoon ñuy wax ay réforme euh, jëm ci justice bi mais dafa mel ni lu ñuy wax génn président ci conseil supérieur de la magistrature fi ñu toll nii euh, nekkul loo xam ni daal soxal na njiitu réew mi. waaw loolu xam nga dafa nekk loo xam ne mbiru sénégalais yépp la woon. parce que donc pour que justice bi mo am indépendance am président de si war a génn moo ki nga xam mooy ministre de la justice am loolu yaakaar na régime yi fi jaar yépp Sénégal yi yàgg nañ koo jooy léegi nag la balle est dans son camp moom mi nga xam ne mooy njiitu réew it moo war a jéem a xool li nga xam ne nii kat moom bu ko defee justice bi dina tëdd ne njaaxaanaay moom mu génn si ak premier ak ministre de la justice am loolu nekk na cri de cœur boo xam ne nii ñëpp yàgg nañ koo mbébét donc di ko ñaan nag moom it wax dëgg yàlla kuréel googu mu jëm si génn ak ministre de la justice bàyyi nag justice bi mu doxal yoonam. Mhm. Euh, aussi. affaire docteur euh, Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng bi nga xam ñu ngi ko euh, jëlee ci bopp ONAS mbir mi jur coow lu bare bari ba mu génne ay dossier sax teg ko ci kaw taabul bi naka nga gisee dossier boobu la nga xam ni coow li mi ngi woy di am. waaw ni ñu gisee mbiru docteur Cheikh Dieng moom li nga xam ne génne jëlee nañ ko foofu si ONAS loolu c'est normal parce que président aussi mooy nommé qui il veut donc yaakaar naa ne si yoon boobu lay jaar pour limoger ko leneen li si des euh, war nañ mën a saytu li nga xam ne nii ba mu nekkee si bopp kër googu ñu jéem a xool doxal bi mu si doxal ndax mucc na ay ndax jaar na yoon wala déet te loolu yaakaar naa ne am na corps yoo xam ne nii ñoom ñoo habilité def ko suñ ko defee nag li si des buñ ko jëbalee président de la république moom mooy jëm a rapport boobu nag nan la koy jëbalee yoon pour que en tout cas sénégalais yi ñoo xamal leen ndax am na lënt lënt wala ndax amul lënt lënt par rapport ak bi nga xam ne nii kër googu yu Cheikh Dieng yorool na ko ko docteur Cheikh Dieng mm-hmm. te loolu daal yaakaar naa ne si bés yuy ñëw mm-hmm. beneen ponk bu am solo euh, maître Adama Diouf mooy jàppante yu métti yi nga xam ni am na ci week bi euh, fële ca Wakaam encore problème suuf askan wi doon laaj euh, suufam ba tax euh, jàppante yu métti amoon naka nga gisee mbir moomu. waaw xam nga mbiru suuf dafa nekk loo xam ne nii dafa doy waar te yàgg na indi ay jafe-jafe fii ci Sénégal. donc ñu war a xam ne lébu yi ñoom it su soosu moomuñu ko parce que li nga xam ne xëñ na seen ay maama fa nekkoon droit bi ci am mooy leen wax droit d'usage la rek mais amuñu benn loo xam ne nii may yoon may na leen ne suuf si yéen ko moom kon ñoom mënuñu ko affirmer na ñoom seen suuf la parce que yaakaar naa ne lépp loo xamee nii ñu ngi fi suufu état la mais pas population bi ñoom droit d'usage lañ am donc li ñuy wax rek mooy invité ñi nga xam mooy autorité yi fi nekk ñu jéem a xool nan la ñuy waxtaan ak ñee nekk fële si wokaam jéem a fexe ba saafara problème yooyu jéem ko lijjanti une bonne fois pour parce que foncier bi war nañ ko lijjanti bu baax a baax a baax ndax li muy jur si coow donc du tey la door yàgg na trop te loolu nag yaakaar naa ne ñi nekk si nguur gi war nañ si saafara waxtaan ak population. Mhm. beneen problème ba léegi nangu fi jóg muy émigration irrégulière gis nga ni euh, doomu réew mi. tout le temps ñi ngi faatu ci géej gi pratiquement saa yi ñu xëyee euh, dinañu wax am na pirogue bu suux am na ñu faatu am na ñu réer ainsi de suite euh, tey jii nguur gi naka la mën a stopper bi phénomène. waaw nguur gi ni ko mën a stopper mooy fi mu nekk sensibiliser d'abord parce que d'accord yàgg nañ sensibiliser. waane xale yi aussi dafa am lu soxla xëy mu ndaw yi lu am solo la ñoom ñi nga xam ne yàlla teg na leen fi aussi dafa am loo xam ne ñi ngi nekk taxaw nekk ay priorité jéem a xool nan ngay taxe ba nga xam ne souffrance su jeunes yi war nañ ko mën na donc saafara ba nga xam ne kenn dootul jóge fii di jéggaani di dem di wuti leneen donc jàppale jeunes yi jox leen formation jox leen ay comme yoo xam ne war nañ suñu liggéey ba ëllëg si biir kenn dootul dem te loolu yaakaar naa ne nguur gi la ñuy mais aussi di interpeller société civile bi di interpeller ñi nga xam ne ni aussi mooy parent yi maanaam dafa nekk phénomène boo xam ne ñëpp la concerné il faut que ñu toog waxtaan ci bu baax te ma xool nu ñuy jàppalee xale yi nga xam ne ñu ngi jël donc gaal yi di dem bitim réew ñu toog si réew ñu liggéey si réew mi mais loolu il faut nga jox leen espoir jox leen loo xam ne daan si mën a toog. Mm-hmm. Euh, laaj la beneen aussi soxal euh, askan wi di exploitation wu pétrole ak gaz bi fiñ toll nii nag li ñëpp di waxtaanee wala nguur gi euh, la muy wax ci mbir moom mooy dinañ renégocier les contrats pétroliers et gaziers est-ce que yow si wàllum yoon loolu luñ mën a def la Euh, wala dafay am ay conséquences est-ce que mën na am ay daan yoo xam ne dafay teg ci ndoddu Sénégal bu dee dañoo rompre ces contrats pour renégocier ko. waaw donc liñ si mën a jàngat mooy xam nga contrat toujours mën nañ ko renégocier loolu moom yaakaar naa ne ci technique contractuelle la bokk maanaam ñëpp ñi ñi nga xam ñoom ñoo seqoon ba xaatim contrat yooyu. sunu gisee na ñun kët suñu état état du Sénégal gisu si boppam kon yaakaar na nguur gi ñëw war na mën a toog ñoom ñu négocier contrat yi parce que négociation aussi buy am genre concession mooy am donc waxtaan ba nga xam ne nii ëllëg si biir contrat yooyu danañ tenir compte intérêt Sénégal intérêt peuple yi te ñun loolu dañuy xaar si ñoom ba pare nag négociation yi bu paree ñu won Sénégalais yi publier contrat yoo xam ne ah ñun kat lii la négocier si contrat yi lii la Sénégal am si li nga xam ni mooy exploitation pétrolière pétrole des gaz bi donc ñu am nekk gestion boo xam ne gestion transparente citoyen sénégalais yi dina citoyen lambda bi dina si gis boppam ñun loolu la ñuy xaar si ñoom mais ba léegi am na possibilité ñu négocier mais pas ñu rompre ko te ma xool noonu koy négocier waat ba nga xam ne intérêt Sénégal Sénégal dana si gis boppam peuple Sénégal dana si gis boppam. dernière question di. Euh, suñu athlètes yi nga xam ne pratiquement ñëpp ñibbi si àndewuñ dara euh, ña ñu teewaloon fële ca Jeux olympiques yu atum 2024 bi ca Paris noo ko gisee maître Adama Diouf waaw nañ ko gisee métti na wane xëj na ndogalu suñu borom la wane di wax ne donc pour euh, donc les années à venir nañu préparer suñu athlètes yi parce que ay jàmbaar lan mettre leen si condition yu baax yoo xam ne nii tey bu dee comme ñu jox leen ko budget bi ñu renforcer ko nekk leen ci euh, euh, en tout cas seen condition war nañ ko saytuwaat bu baax a baax accompagner leen donc loolu la ñuy xaar si nguur gi nga xam ne ñoom ñi ngi nekk en place dama xool nu ñu joyante suñu sport bi waane ñu leen bay nii joxuñu leen jumtuwaay yi si war ñu leen mooy yi si war bëgg tey ñu indi ay médailles loolu dina xaw a jafe parce que pays yëpp dañuy jàppale seen ay athlètes comme ñun aussi yoon la ñu toogaat def benn assise boo xam ne nii par rapport euh, donc à l'athlétisme fii au Sénégal les sports d'une manière générale yama xool nu nu war a doole suñu acteurs yi nga xam ne ëllëg si biir bu mu génnee dana mën a indi ay raaya hmm. kon euh, merci beaucoup maître Adama Diouf ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité jërëjëf madame jërëjëf waa Rewmi FM maa ngi leen di remercier ñuy fàttali ni maître Adama Diouf consultant en droit nekk secrétaire général bu mouvement patriotique pour la défense et la citoyenneté jërëjëf Adama Diouf.